merci beaucoup asalaamualeykum mbooloo mi message u président Ousmane Sonko mu seetaan en direct lépp li xew fii waaye nag neexul te war ngeen nee na dafa bëgg képp koo xam ne am na lu tuuti loo ko dugal sa xol nga la waay leader bu taxaw fii na ko tàcc te bu ko yuux kan ngeen topp kon def leen li wax ndax mooy rafetal mbokk yi c'est un prisonnier errant qui vous parle aujourd'hui ndax xam ngeen ne Macky dafa décidé ne kenn du wax déet ci mim réew moo tax mu jàpp lu ma 364 détenus politiques ñii mu tëj leen ñii mu isolé leen ñii mu door leen contrôle judiciaire ñenn ñi mu delloo leen ci buumu jaam ñu mel ni man ngeen gis ko waaye lu metti yàggul ndax bi ñu sumb xeex bi xamoon na ne suñu bakkan mën nañ ko ci ñàkk donc tëj kaso du ci dara encore une fois na ñëpp pare bu mënee na tabax ay kasoy kasoy kaso. jërëjëf. leneen li nga xam ne bëgg naa ci daaneel mooy mbokk yi kenn moo dul bokk ndax warul bokk mënul bokk. te du bokk mi président Macky Sall. waaye ñëpp ñi fi des dinañu bokk. ndax sénégalais yi ñoo war a tànnal seen bopp ki leen di jiite président so Macky Sall mënu leen ko tànnal maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. jërëjëf président Mor Ndiaye. dama am une pensée exceptionnelle pour nos jeunes frères et amis le président Ousmane Sonko. mu wax leen ne leen fii ma taxaw tey ñun ñëpp ñu sañoon Ousmane Sonko nekk fii ak ñun waaye xam ngeen ni ko téye moo tax mu bëggoon wax ne lépp lu ko mën a téye lépp lu ko tank a tënk lépp lu ko mën a koor gàllankoor ne peuple sénégalais koor ne la de la coalition yi askan wi gàllan askanu Sénégal kon nag président Ousmane Sonko foo ma di nekk jàppal ne sénégalais yaa ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay bàyyi xel te may ne ñun tey man Malick Gakou lépp loo xam ne day gàllankoor Ousmane Sonko du ma ci nekk du ma ci wax du ma ko laal te du ma ko jege. ma ne ma répété ne lépp luy tuutal Ousmane Sonko lépp lu yàq Ousmane Sonko lépp lu koy man Malick Gakou du ma ci bokk ak ñi ndaxte loolu mooy la volonté populaire ba ca des ma bëggoon laaj peuple sénégalais bi ma bëggoon est-ce que vous êtes d'accord pour le dialogue est-ce que vous êtes d'accord pour le dialogue nous disons non au dialogue digne non au dialogue digne non au dialogue digne bi ci des bi ci des mooy le président Macky Sall premier mandat zéro résultat premier mandat zéro résultat premier mandat zéro résultat deuxième mandat zéro résultat deuxième mandat zéro résultat deuxième mandat zéro résultat alors comment se fait-il que après deux mandats avec zéro résultat nga ne da ngay gis nga sama prise de parole ñëwagul wante yéen ñi nekk fii taxaw je sais que ay patriotes yu mag ngeen est-ce que ay patriotes ngeen est-ce ay patriotes ngeen gis nga. na le président Khalifa Ababacar Sall mii taxaw depuis deux ans et demi taxaw ni bu fekkee da ngeen bëgg ñu jël fi président Macky Sall il faut ñu ci dëgg te ànd ci dëgg mooy képp kuy leader Yewwi Askan Wi képp kuy leader d'opposition nanu nekk benn àndandoo yëkkatandoo dóorandoo xuusandoo ci kanamu président Macky kon tàccu leen ma tous les leaders qui sont là tàccu leen ma toute l'opposition présente tàccu leen ma dégg jóg leen ma tàccu ma dégg jóg leen encore encore encore et encore c'est ça li suñu bopp guddi ak bëccëg ndax te lii laa bëgg ñuy continuer tàccu leen ma le président Ousmane Sonko tàccu leen ma Khalifa Ababacar Sall tàccu leen ma Pape Djibril Fall tàccu leen ma Karim ma ñëpp ñi nga xam ni tey nekk di xeex contre le président Macky Sall président Macky Sall le peuple est là le peuple est debout le peuple est prêt à vous faire face ce peuple sans l'unité ce peuple sans la mobilisation et ce peuple reste plus que jamais déterminé à se battre contre la troisième candidature tàccu que Macky du bokk tey du bokk suba ñun ñëpp on est unis contre la troisième candidature de Macky vous savez je l'avais dit ici je le répète moi j'ai fait l'armée j'ai fait l'armée dans l'armée on nous a appris dañu jàngal ni les petites querelles il faut jamais ñu ciy perdre temps il faut ñuy jóg sur les grandes querelles les grandes querelles mooy le départ de Macky wax leen ne départ de Macky Sall départ de Macky Sall départ de Macky Sall départ de Macky Sall merci beaucoup. sama gaay sama gaay salaamaaleykum asalaamaaleykum sama gaay sama gaay sama gaay naa ne yéen benn xorom rek moo leen dese te pour Macky Sall benn xorom moo leen dese sama gaay sama gaay dal leen si Ahmed dafa ndànk dafa xaaral xaaral xaaral. non troisième mandat non troisième mandat dama leen di ñaan nag dama leen di ñaan képp koo xam nga gëm nga ne patriote nga nga déglu. ñaan naa leen képp ku jàppe sa bopp patriote ñaan naa la nga déglu ma képp koo xam ne gëm nga ne Sénégal moo nekk sa xol ñaan naa leen déglu leen ma déglu leen ma waaw message bii may wax Colobane lancé naa léegi lancé allo allo allo allo

benn famille lañu benn jur lañu bëgg mooy jàmm ak dëgg li ñu bëgg mooy Macky Sall du bokk li ñu bokk mooy Khalifa Sall na bokk li ñu bëgg mooy Karim Wade bokk mooy li ñu bëgg mooy Ousmane Sonko dina bokk li ñu bëgg mooy jàmm Sénégal jàmm bu lalu ci dëgg na ngeen booloo nekk respecté les leaders yi ngi leen di gërëm leen di leen siyaare. man nag sama kàddu. ci yéen jeunesse bi taxaw la jëm. tey. dafa am benn bëgg-bëgg bu ñu am waaye bëgg-bëgg boobu pour ñu mën koo am. allo allo. foo ñu xam ne suñu noon xam ne waxtu wu war war a xeex ak waxtu woo